mbooloo mi kii jël kàddu gi sunu doom la sunu jarbaat la sunu rakk la il fait la fierté de tout un continent she made us proud of being one nit la ko xam ne bokk na ci euh, téeméeri jigéen yi gën a influente ci Afrique bu yàggul rek waa CNN ñëw lu ñu interview ko ndax moo yor intelligence group te intelligence magazine ci la bokk meeru New York décoré na ko waaye li ma waxoon léegi rek ki wul di tëb doom jëbët une un profil vraiment extraordinaire avec un parcours à émuler soxna Amy Sarr vous avez la parole auzu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin di nuyu mbooloo mi di sant bu wér a wér Serigne Touba xaadimu rasul bim ñu boolee ci ñooñam di ziar ziar bu sell suñu sang bu tedd bi Serigne Mountakha Bachir xaadimu rasul suñu wasila xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd di nuyu njabootu xaadimu rasul bi teew fii yépp te di ko jaarale ci Serigne Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké mi yore kàddu yoon bi di nuyu autorité administrative yi teew fii tey gouverneur préfet de Mbacké maire de Touba jërëjëf ñu ngi leen di sant ci seen teewaay di sant sëriñ Abdourahmane Mbacké xalif gaynde Fatma di sëriñu suñu waajur Pape Fall Mbacké ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci sa teewaay sa teewaay fii tey sori na loolu ci ñun Mbacké yàlla na nga fi yàgg te ànd te muy rafetlu jëf ji Serigne Mountakha teg ci loxoy Cheikh Ahmadou Badiou Mbacké mi nga xam ne taxaw na ci taxawaay bu kawe bi suñu kilifa Cheikh Bass Abdou Khadre xoolee plan yi wane ci mbégteem gis ne du jëf bu war a làqu loolu tax njabootu Cheikh Ibra Sarr ci turu seen xalifa Serigne Khalil Sarr ak njabootu Serigne Abdoulaye Diaw Paxa ak bu rakkam Serigne Modou Diaw Paxa rawatina ak bu maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Modou Lamine Diop Dagana Serigne Modou Mamour Mamour Niang ànd ko ak ñun njabootu El Hadj Modou Fall Ngagne Fall ne sa bopp ba teewe yëgle tegu xeer bu njëkk bi Cheikh Bassirou daf sa këram Mbàkke loolu amuñu cant yi ci war wante ñi ngi ñaan suñu yaakaar Xaadimu Rasululaahi fayal ñu la jërëjëf Mbàkke ci yéene bi ci taxawaay bi si ñaan yi jërëjëf yàlla na fi yàgg yàlla na la Serigne Touba fay ñépp xam nañu sa yéene si Touba jërëjëf Mbàkke murit moom li maam Cheikh Ibrahima Fall wax rekk jëf jël ñàkk jariñu jërëjëfati làmp baabu murit dina ñun de suñu wax mooy way di gis bokk si fi ñu taxaw nii de mooy tool bi suñu waaju pàppal daan bayee yor satalam ak ndoxam bu maree tooyal ci xolam. rajo yi ngir sàkkanal li des. kon yàlla bu defee tey ñu nekk ci liggéey bu mel nii duñu def lu dul jagle ko Xaadimu sol sant yàlla bi ñu boolee ci yoon bi liggéey bii nag liggéey la boo xam ne bis bi ci suñu waajur jubloo ñu wan ko ci suñu mbégte ne ko tamit bu ñu sañoon mu bàyyi ko suñu loxo mu nangul ñu ko man ak samay rak ñi jiite entreprise Vimo Fara Fall ak Jidi Fall di nuyu Moustapha ak Maymouna loolu moo waral ñu ànd si ak société yu xarañ si bâtiment ñu mel ni TCG société africaine internationale bi bokk ci société yi gën a xarañ ci bâtiment ak bureau Veritas bureau de contrôle bureau Villiers bureau d'études siège am nekk France benn sénégalais bu ñuy woowee Amadou Villiers di natifu Bawol am filiale Dakar ak architecture Marc suba architecture liggéey bi nag du liggéey bu suñu waajur mii di xaar ab pay ab cant la ñun sëriñ Touba dafa dalal suñuy maam defar ñu defal ñu kon suñu waajur xaaru si lu dul mbégtewu Serigne Touba mm-hmm. lépp sëriñ bi la sëriñ Touba lépp a ma sotti ci suñu borom dëkkam bii nag lu fi nekk démb tey ak lii nekk fii ëllëg dara ump ko ci li ko firandeel mooy lu fi nit gis rekk daka bindoon loolu firan na ne yàlla moo ko ko may kon lépp lépp léppuy xaadimu rasul la ñun daf ñu ko sagalee rekk dangeen ñu ko sagalee rek mbàkke ubbital masalikul jinaan bi sëriñ muntaxa def ci ndakaaru ak inauguration université bi symbole yu mag la ci yoon bi humanisme valeur du prochain loolu yépp sëriñ tuuba sëñ muntaxa moo ñu ko may xiir ñu si boole jàng ak diine kon sant si turu taalibe yi suñu imam ci Ndakaaru Serigne Bassirou Lo sant Serigne yu Faye représentant xalif général des Mourides ci jëf ju rëy bi mu liggéey Masalikul ñuy ziar Serigne Mamor bi nga xamante ne moo jiite Al Azhar université Serigne Abibou bu Touba ca kanam di nuyu waa Touba ca kanam yépp mobilisé wu tey ngir teew ci bis bi di nuyu soxna maam ci Mbaye sama papa nag nee na ma ami nag ma gërëmal sa yaay soxnaam ma jigéen sama yaay nag wax si moom yombul bu ñu doom lim ay jëfam yu baax duñ fi jóge wante benn firande rekk laa leen di jox bi ko sam papa waxee ne daa bëgg tabax bërëb bi def ci engagé wu ñun ñépp ñu engagé aussi ak moom ñu ngi sant yàlla bim ñu boolee ak yaay jumel nii di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér soxna su yaatu bu mel ni moom ñi ngi koy sant man de lenn rekk lay wax bâtiment bi nga xamante ne ñaan nañu yàlla ci ay weer yu néew lu ñëwaat fii inauguré ko ñi nga xamante ne dañuy jóge fu sori war a ñëw faju si fii si hôpital bi bu yàggul rek ñi ngi gis kéemaan yi nga xamante ne hôpital bi mi ngi koy def si ñu am AVC ñu xam ne hôpitalu Touba luy jëm kanam la luy gën di jëm kanam la ñu jël engagement tey accompagner hôpital boobu créé fii édifice boo xamante ne 144 chambres lay am ak ñaari suite loolu boo gisee ñu ñëpp nu ànd si ki nga xamante ne moom nañ ma tuddee muy soxna Ami Sarr keroog ba muy génne àdduna yàlla dafa def ba muy waaj a egsi ci hôpital bi la yàlla dogal loolu nu nangu ko kon tey buñ koy def dafuñu ko ludul xam ne xam nañ ne kontaan na fa mu nekk xam nañ ne xolam sedd na fu mu nekk ndax dëgg la jotuñu ko gis ci suñu dund wante képp ku seede ci moom nee na ku yaatu la woon ku baax la woon ku bëgg nit la woon kon tey doomam Pape Fall bu demee ba tabax lu mel nii ci dëkk bu sell bii xam naa ni fa mu nekk xolam sedd na kon maa ngi sant bu baax a baax sam suñu famille ñi ngi lay sant man Fama Djily sama yaay ñi ngi lay sant ak say rakk yi teew fii yëpp ak say mag ñi ngi lay sant di lay ñaanal nu gudd fan te ànd ak wér di sant sëñ Muntaxa Bachir mi la décoré tey loo mérité la wante mënuñu lu dul sant suñu maam yi nga xamante ne noo boole si yoon bi suñu maam Ibrahima Sarr Diazaka sëriñ Badiou ñi ngi koy sant bu baax a baax ndax sëñ Mountakha Bachir moom la dénk liggéey bi université bu ñu ko dénkoon ñëpp gis nañu fim ko yóbbu te day gën a jëm kanam rekk kon ñi ngi sant bu baax képp koo xamante ne tey. teew na si ne ñu ñu ñu may ko rek mu wax benn baat asalaamaaleykum wa rahmatullahi aleykum salaam ñoo ngi tuub tey jéggulu di jël kàddu bi jublu ci eh, sant yàlla bu baax ci lii nga xamante ne bii am na ci bërëb bii ñu xam ne li ko amal du lenn lu dul mayu xaadim rasulullahi mbàkke jaamu kenn eh, bi nga xamante ne bi lee moo ñu baaxee ñu mën a nekk fii taxaw fi nii am murit nag ah wax dëgg yàlla mën nañ ko wooyee ab dof ndax na muy defee nitu kese day gis ne kii wérut waaye nag suñ sëriñ di am lu mu ñu wax ginnaaw bi nuyoo sëñ Mountakha Bassirou di ñam yàgg fi wér ak njabootu Xaadimu Rasuul gii Xaadimu Rasuul nee na buñ la jiiñee ab dof bul naan laajal Mor Lissa wala Bara Gaye wala Moustapha Sène man dofuma ne da jëf jëf joo xam ne ku gis xam du jëfe dof ndakaaru njabatu xaar mosul ga fa nekk lu waay de xemmeem rek mun nañ ne doyal nañu ko ba nekk ay royukaay ab dof nag koo koy roy nag ba ngaa dof dafa am yoo xamante ni dafa war di leer ndaxte alal dafay lu sew mën a dugg ñuy waat ne xamuñu njàmbaar guñ def ba am dara waaye nag xamuñu tooñ guñ def ba am dara kon nag jàpp nañu ne li ñu am li ñu yor am sax moom suñu borom rek ko jaayoo parce que xam nañ allahu moo jóorin bi xayri moo jëli fii na moo jëli ku la moo jëli allahu kaamilu mu kaamilu sawa alkoon kululoo ma xawa kenn sàkkul te mu nekk lu sàkk mu sàkk ko mat te lu mat moo ko matal àddina ak li ci biiram muy borom kon man gëm naa ne mag fépp suuf si bokk borom xobu garab gi ñoo bokk borom kon am am moom bu ñu defee ne mën naa nekk suñ borom jagle lu ñu ko bopp rek la ko jagle sëriñ xaasin balaa xoos foofu sax am sata njaay ak màggat Diop dañuy seede ñun wutuñu ngërëmul sëñ Tuubaa am nañ ko bu yàgg laylatu xadar la ñu ñëw Cheikh Abdul Xaadir julli faja ba noppi gestu ñu seede yaa ngi nii lu ñu am ngeen ngërëmul sëñ Tuubaa kon loolu moom ku ne xam nga ne taxu duñoo jóg sëriñ Xaasim xam nga li xew Allemagne laa nekk lu ëpp at lu ma fas te xànc ak morom bi nga ñëw fa ay vacances yàlla def ma for dara gis daamar juy jaay ma ne kii naa ko jox suñ suñ gan gi ko xamaguma la woon sax ngay jàng nga ñëw fa vacances la ma dal ci oto ba am sa njaay mais xam na ko ba ñu génnee bëgg caa liggéey police jàpp ko kenn métu faa dem ñoo dañ koy fourrière ma xëy wax loo ko nga ne ma loolu amul solo nañu dem ban dikkee ca bunt ba almaa bay seen patron daan dajeel mu ne may du bés faar ma ne ko yaa mu ne ma waatamaa yee def andi kër yëpp jébbal ñu demaat suñu yoon sëriñ bi dañoo ànd man ak yow almaañ bis booba gont ngont moomee la ma ñibbisee Sénégal ca laa ko amee bu ma nee lii du lii lii tàmbaliwul tey démb la woon loola nag ku ko xamul mën nga ne ñii ñoom ndax yemb nañu. fekk na xam na sax am na yoo xam ne kenn wax fii bind nañu téere incha allahu rabbi dina génn bu génne ñëpp danañ xam ne ah yëfu nit la yaakaar nañu ko. ñu Ahmadu Badiou jërëjëf yaa ma yóbbu ci ku tedd ki mu rafetlu lépp ñaan ci joxe ci tur bi. jox la ndigalu nga taxaw liggéey bi sa rakk ju baax ji suñu bés Abdou Xaadir ni lii moom kenn ko xumtoo jëf ju baax dañ koy wone nit ñi kii ko amutul sagoog ci man booba ba léegi damaa am sax gàcce saa su nekk mbubb mu ne lii ma sol nii moo ma ko jox mbubb mi parfum yi yëf yi bokk sëñ bi ak yoo xam ne sañu ma ko tudd ndaxte mooy mu mu tudd waaye nag du moroom li ma def li ñu nar def fii de loolu nag foofu laa yem loolu sañ naa ko wax waxuma nag li ma tere woon waxuma ko waaye daa xam naa ne moom du moroom li ñu nar def fii kon yaakaar naa ne alhamdulilah alhamdulilah sëñ Moustapha jërëjëf sëñ Mamor Mbacke sëñ Moussa ak sëñ Moussa notaire ku bëgg a xam ci man dara nag moom samay liggéey sama yëpp bul sonal sa bopp si Moussa notaire doomu Gaynde Fatma moom xam na sama lépp man li ma def amul lu may nëbb du ma dugal fii ci dëkk bii lenn lu liggéeyu maa ko état mosul maa jël seenu marché lu ci Ablaye Wade du ci du ci du ci président Macky Sall ñoo ñëpp na samay xarit lañ waaye seen tubaab lañ tey Macky Sall maa ko njëkk wax ne ko. lii da nga def ci màggal gii ndox manqué wul courant manqué wul xamal nag ne bu ko bu ko bu bu ko bu bu defee ne lenn lu dul bëggu sëñ Tuubaa gu egsi nga am sens mu jàll ko ci yow waaye xamal na ci am lu kawe sa njort ci biir loolu nag waxtaan yu xóotu am na yooyu xajul fii desu ko fi tudd itam waaye da ko am waxee rek man day maa ngi lay sant bu baax fan njëga ndaxte li ma lay sant mooy dangaa ngaa dem jàngi université américaine de Paris UP UPI université ba di cent di di cent national di mille étudiants ñi fa gën a am ñu xarañ nekk fa nga nekk fa ak ñoom ñu dem naw la ba takk seeni i bagage ñëw fekk si la fii Sénégal woo waa Sénégal ne dañoo bëgg modèle yu mel ne Amissa yow nga ne na ñëw jàppale mu drapeau Sénégal ñu toog ñu ñëw man sa yaay ñu añandoo ak doomu ay milliardaires yu fay jàng ñu naan ñu si c'est pas Amissa comment ma vie allait devenir ndax di nga leen di delloosi kon ñoom bu ñu jógaatee takkandoo jël avion lu mat fukki nit ak nangam fekk si la Sénégal andi luñ lay jébbal téere boo xam ne bii la lislaam rekk lay wax ndax ba nga def sa mémoire da def ci yoonu murit am ci a kon loolu day firndeel ne nekkoo fa woon wan gannaaw waaye nag mënut a demee leneen. ndaxte man kat suñu askan wi jigéen jàng ci génn dugg avion man xamu fu ko fon ba ma ko bëggee def itam amoon naa ci kersa waaye nag dañoo ànd dem ak moom ak waajuram ak rakkam ya tocc ku tedd ke Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké buñ ko waxee mu toog ba mu neex ko mu ne kii dem tugal na àndu ma ñaan ko bari ko ñaan moo tax ami ku ne ko yow da ngaa man li da ngaa man day da koy jàpp te dafa xam du dara ñaanu sëriñ Saliou la li may tëje mooy sëñ Sohaibou sëñ Cheikh Isma sama nijaay Isma Fall sama rakk li nga ko tudde sëñ Mor Diarra Sarr moom la moo moo jur soxna Ami Sarr mi sama waajur sëñ Mor Diarra Sarr mooy waajuru sëñ Isma ñii samay nijaay lañu ñii samay mbokk lañu ñii sama lépp lañu samay sëriñ lañu ci ci ci li may tëjee wa kay alhamdulilah alamin Cheikh Souhaibou yoo xam nga li may bëgg wax damaa ñëw sukk ci kanamu ku tedd ki nuyoo bare ne la sëñ bi naa bëggoon ñaari pàkk bu ñuy dugg Touba. ak bu bu nekk misira boobu Cheikh Saliou ngi nga woo ma ne ma pàkk yooyu kat jàppandi na boo ñëw nga daal sa garantie yàlla def ma daal dégg ku tedd ki wax ne moom day def mu romb rek ñu miiroo ko tax xamul ci jublu te loolu tax ko la seen bu kat pàkkee nañ ko bàyyi ndax ma nga dama ko nar a rek xamaguma lu ma ci def te sëñ Saliou dégg na li mu wax nga ne ah sëñ Pape may def sëñ bi nañ def noonu li ci yéeme mooy fii laa xalaatoon. fii laa xalaatoon nga jox ma fi ci yoonu Misra bi ci topp mooy fa nga xamante ne bile ma ngi ca juuti Mbàkke ba bi ma koy jënd ci lim boo xam du ma ko wax mook lu dul amut solo laay ma la woon njëgg te ba ma koy ba ma koy def daa mel ko amut àndul sama sago kon foofa ak foofa dégg ndigal bàyyi ko fa tax na ñëw na mu le gouverneur <laughs> ah waaw c'est Ibrahima Fall lam ba muri dina niir la mën a demee te niir niir mooy sax rek parce que Xaadimu Rasuul lépp ci kanam bu ne gouverneur u région de Diourbel nga xam ne fi Touba tey jële département bi nga xamante ne bi la moo ëpp solo ci ëpp ëpp mbooloo ci Sénégal te lenn war lu ko dul région région boobu ñu ne le gouverneur bi ko yore mooy Ibrahima Fall ah <laughs> wax dëgg yàlla loolu war sa bett kenn dañ ci war sant békki rek euh, monsieur le préfet monsieur le sous-préfet Isma Diouf ministre conseiller man daal sama sang bu tedd bii di Cheikh Ahmadou Cheikh Cheikh Ahmadou Abdourahmane Mbacké ñaan gi nga koy ñaanal yàlla na ñaan yi nangu amiin moom day ku roy ci moom doo ma nekk lu taalibe ku sab sëriñ gën a nekku taalibe war ngaa gën a góorgóorlu nag jëm a nekkub li koy firndeel mooy daa dem bay xalifab xalifa général des de Baye Fall tuuba illaa tooba na sant xalifa général de Baye Fall mu ne ko xalifa Ibrahima Fall xalifa sëñ tubaab rek moo ko war a yilif dëgg la jël lépp jébbal ko ko Mbàkke yoon wi def nga ci liggéey boo xam ne bi ñun fam yu egg yàlla rek ko xam kon yéen waa convention ni ko ami waxee munu ma dugg ci googu wet soxna ma jigéen ni ko ami waxee noonu la leneen nekku ci yaa ngi njaboot waaye ak sa xarit yi nga xam ne bii foo dem ñu fekk ne màggal yëpp ñu yow màggal bu ñëwee bala moo jàll da nga dalal Seex Murtala Juma plus de 300 personnes nga yore leen yore bu gën a rafet saxal ko ba màggal gi weesu yàlla na la fay. dina ko fay sa njaboot gi. Mm. jërëjëf lay yow nag roy laa lay def ndaxte dafa am loo ma waxoon ci Amérique ci Seex Bamba dey nga dem ma géwél bu tabax jumaa sëñ Tuubaa rekk ko am muy moom mii kon nag li ñu doon lay roy nga yow yeesaat ko bëgg dem doo ko ndaw siyaaxu dama la ko waxee rek yàlla def na noonu defar ngir ñëw liggéey ci liggéey bi suñ axamul sëñ jiital la nga ñëw di doxal doxin wu rafet sëñ Moussa Mbacke notaire jërëjëf jërëjëf Mbacke Mbacke sëñ maam Cheikh kenn mooy Cheikh dafa moom moo war a wax fii moom moom fii kii kii mooy soxna Ami Sarr kii moom a jur waaye nag dañ ci amal ngeen xéewal moom dafay sëñ tubaa di Cheikh Ibra Sarr ba nga xam ne bii waa kër Cheikh Ibra saar yi comme mag dañ ko defaat sëriñ kilifa ndax soxna Xadi sëriñ Fallou Mbacke muy waajuram alhamdulilah rabbil alamin maa ngi tuub tey jégalu jërëjëf ah Cheikh Mbacké